والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw ñu ñëw bi ñu leen di ziyaara ci bisub aljuma bi ñu naan suñu borom li mu am ci ay ngëneel ak yi ñu defal ñu ci tawfeex Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla wattu ko sàmm ko ko bàyyi ko ci mu yeddal mboolem ay naalam jëf ci liggéey bu ci lu mu gën a rafete gannaaw loolu waxtaanu tey day sukkandiku ci benn xadis yan wax ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne mën wax ni bokk na ci waxam kàddoom yu gàtt baatam yu gàtt ya mu daa wax te mu ëmb ay maanaa te mu ëmb daanaka rek te mu tënk diine daana wax ay baat yoo xam ne ëpp ñaar mbaa baat yu gàtt daal yoo xam ne ko daa wax waaye day gàtt lool te ëmb mbooleem li ñu nga xam ne day yomb jàpp yomb xam xadis bi ñuy bëgg a waxtaane bi ñuy bëgg a nafar tey ci wax yooyu la bokk te mooy wax gi mu wax ne ad diin an nasiha ad diinu nasihatu mooy diine lislaam jëpp jëpp jëpp mooy sellal sellal te nga wàccoog li la war li la war lépp nga wàccook moom def ko definu sell ngir jëmm yàlla kon sellal li la sellal te mooy wàccoog li la defe kon nañ ko bëggee na ko war a defe te yàlla rek tax nee na loolu mooy diine di waxee loolu nag wax ji dafa dafa dafa tënku ndax diine mooy sellal sellal lu ñuy def lay doon looy def ngay sellal looy def it dana am ko ko ku jëf ji jëm ci moom kon dana aajo ay leeral yu ci topp moo tax saxaaba yi laaj ne ko laaj ko ki nettali xadis bi ne xul naa li man yaa rasulallah sellal googu ngir kan kan la ñuy sellalal li ñuy def wala ñan lañuy ñuy wàccool la war suñu digganteeg ñoom mu ne lillahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim mooy nga wàccoog sa boroom li war ci sa diggante moom nga def ko nañ ko war a defe te jëmmam tax wàccoog téeréem bi muy alquranul karim la la war sa digganteeg moom nga taxaw ca na mu waree te nga def ko ngir yàlla wàcceeg yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy li la war ci sa digganteeg moom nga def ko te defe ko na nga ko war a defe te yàlla rek tax ak wàccoog kilifay jullit yi njiit yi ñi nga xam ñooy jiite mbooloom jullit mi ci waxtu ne képp ku jiite mbooloom jullit mi rek nga wàccoog moom la la war ci sa diggante mu nga moom mooy nga def ko nam la ware te def ko rek te yàlla te ngi jëm yàlla wàccoog mbooloo mépp mbooloom jullit mépp nga wàccoog ñoom kenn ku nekk la war ci sa digganteeg moom nga def ko na nga ko war a defee te yàlla rek tax nee na lii daal képp ku ko def rek sa diine mat na loolu kon mooy moy mooy wax ji loolu nag dafa aajo boroom xam boroom xam-xam yi dañoo firi wax ji gën koo jegeel ba lu nit ñi lu nit gàtt-gàtt alluwa wala am xel dana ko mën a dégg ñu wax ne wàccoog yàlla damooy mooy sellal si diggante ak moom mooy nga nangul ko moom rek mooy yàlla ak wéetam nga nangu ak wéetam wéet gi mu ci jëmmam ak i meloom ak i jëfam nga xam ne amul kenn kuñ koy dendaleel mbaa kuñ koy gam-gamleel mbaa kuñ koy nuróoleel wéet googu nga nangul ko ko saxal ko te dogu ci nga ja nga nangul ko ne moom moo wéetoo meloy mat yëpp melo yi nga xam ne yëpp muy mat gu dara desul moom rek moo ko jagoo moo ko wéetoo ci anam goo xam ne kenn bokk koog moom ci genn anam ci anam yi loolu moo jiitu ci sellal sunu warteeg ci sunu digganteeg sunu borom ji di ko jaamu nag di ko jaamu ci zahir ak ci baatin jaamu ko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 أشهد أن محمدا رسول الله sunu boroom ci sellal suñu digganteeg moom mooy nangu wéet gi mu wéet ci jëmmam ak meloom ak jëfam ak wéetoo gi mu wéetoo melo yi mat yépp ci anam goo xam ne kenn bokku ko ak moom ci genn anam ci anam yi sax ci di ko jaamu ci zahir ak basin jaamu ko ci zahir mooy li muy digle ci ay ndigal yoo xam ne bu ko jaam bi def ñu mën koo seede ci ay cëram muy def ndigal yooya tere yi nga xam ne su ko bàyyee ñi muy jaxasoo xam ne mi ngi bàyyi tere yooyu mu di ko def mu di ko bàyyi te yàlla tax kon jëfe ndigal yi feeñ bàyyi tere yi feeñ loolu mooy jaamu ko ci zahir jaamu ko ci baatin mooy li ko yàllay digal te ab xolam di ko jëfee nga xam ne yàlla rek ko mën a sede jëf ja waaw lu mel ni gëm ak ragal ak yaakaar ak aju ca yooya yooyu yëpp mu di ko def nam ko ware tere yi nga xam ne moom lañuy tere te ab xol war koo bàyyi bokkaaleeg yàlla njistal rëy ak ya demee noona yëpp it mu bàyyi ko te yàlla tax wala mooy jaamu ko ci baatin kon sax ci jaamu yàlla ci zahir sax ci di ko jaamu ci baatin tey dellu ci moom saa su nekk di wéral sunu njaam ci moom di fedd li suñu aajo woowu jëm ci moom ba noppi di yëg ne ngir ragal guñ ko ragal ak yaakaar guñ ko yaakaar te fuñ toll it luñ ca mën di def ñu yëg ne gàttam dinañ ca lool te lot ca ñuy sax ci di ko di tuub ak di jégglu saa su nekk lii la borom xam-xam yi wax ne mooy sellal suñ digganteeg sunu borom te mooy wàccoog moom bu fekkee lu ñuy lu lu jaam mën a def la sellal suñu digganteeg alquranul karim téere bi yàlla bi borom xam-xam yi nee nañu mooy nga wattu ko wattu téere bi am na wattu goo xam ne jaam ñëpp la ko yàlla sant jullit yëpp te ko jàng am mbooloo mu koy mokkal di ko bind mu des fi ba faw loolu ndigal la loo xam ne moom mbooloo mépp ko war a àndandoo fexe ba dimbalante ba am mbooloo mu cay féete ak nag ki ki nga xam ne yàlla jagle na ko mën a wattu mu wattu moom téere bi yëpp mbaa mu wattu ca la mu wan boole ko di jàng alquran di ko settantal la baat yee tekki nga di ko jéem a xam la maanaa yee tegtale nga di ko jéem a dégg boole kook nag li alquran di digle nga farlu ci di ko jëf sa kem kàttan ci sa jëmmi bopp lam la diggal ci ñeneen ñi sa diggante ñeneen ñi nga di ci góorgóorlu di ko jëf sa kem kàttan nañ loolu mooy sellal ci suñu digganteek téere bi yàlla bi wala sel wàccoog moom euh, bu dee luñ mën a def la sellal ci suñu digganteek ak yonentam bi te mooy moom ci waxin nee nañ mooy boroom xam-xam yi nee nañu mooy nga nangu ne nga dëggal ne yàllaa ko yónni yónni gi ko yàlla yónni mu ñëw wax ne yàlla ko yónni ndawul yàlla la nga gëm ne loolu xabaar boobu lu wér la ku yàlla yónni la lépp lu mu indi ne lii yàlla ma ko yónni ne naa leen ko jottali nga gëm ne loolee mu wax dëgg la lépp lu mu nga jëf ca la nga man sa kem kàttan dem ca bajeex jeex lépp lu mu tere nga bàyyi ko lépp lu mu atte nga nangu ko te Eh, nangu ñu wéyal ko ci sa kaw eh, bañ koo jiitu ci dara bala nga lépp looy def nga déglu ko ca ba xam lu ca santaane ak nu mu wax ne nañ ko defe noona nga door a def loola nga def ca lam santaane te defe ko nam ko santaane te wéyal ca lam ca atte mooy bañ koo jiitu te tey màggal war maam màggal lépp lu aju ci moom di julli ci moom foo toll di ko ñaanal yàlla dolli koy xéewal ak teraanga ak màgg te di ko dimbale di ko dimbale mooy fépp foo xam ne lépp loo xam ne lu keneen di def la luy mel ni kuy suufel ku bëgg suufel suufeel dara jaam mu bëgg a wàcce mbiram nga at nga taxaw euh, euh, xeexal ko ca loola defante kooka sa kem kàttan ba saxal kawek darajaam ak e, màggug mbiram dundal itam aw yoonam te mooy mooy ab woote lislaam bi nga fexe ba mu gën a yaatu te sunnaam itam nga tasaare ko ba ñu bari nit ñi xam ko di ci jëf seen kem kàttan lii mooy wàccoog yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxiin wàccoo kilifa jullit yi kilifay jullit yi borom xam-xam yi nee nañu mooy ñi yor seeni mbir di ko lijjanti euh, jiite leen la ko tàmbalee ci ñi njëkk a wutu yonent bi sallallahu alayhi solo sallam muy alxulafaa rashidun ak ñi toppaat ñoom ñëpp di di njiiti jullit yi ñu leen daan tudde ay xalifa ak ginnaaw ba nu ñu leen mën a tudde rek ginnaaw ñoo jiite mbooloom jullit mi daal nekk ci boppi boppi réew yi yor baati nit ñi ñu di leen topp ca la neex yàlla lépp ñu santaane te safaanoo wut ndigalul yàlla ñu topp leen ca loola bu ñu wootee jihaar ngir dundal lislaam ba aar kaaraangeeg réewi lislaam yi ak seeni am-am seeni moomeel bu ñu wootee jihaar ca loola nga ànd caag ñoom te bañ a bañ a fippu maanaam bañ a seen kilifteef bañ leen a ñàkk a ci loo xam ne yàlla terewu ko kon bañ a fippu ku ci kilifteefu ki jiite ba la soob yàlla loolu it nañ mooy wàccoog kilifay jullit yi kilifay jullit yi nag ci ñoomit njiit diine yi ñi nga xam ne ñoo jiite nit ñi ci seen wàllu diine di seeni kilifa ñuy dellu ci ñoom ci wàllu diine ji ñoom itam ñuy dégg lépp lu ñu wax lépp lu ñu nettali jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci diine ji bu fekkee ne ay benn benn lañu lu ñu wet wet ca wax ja nga dëggal leen bu fekkee ñoom ñépp ànd nañ ci dëppoo ci ne lii ci mbirum diine lii nii la ñu nangul leen topp leen ca loola loola bokk na ci déggal kilifay e, jullit yi kon kilifay jullit yi mooy kilifay diine yi ak kilifay ñuy wooyee léegi ay kilifay àdduna waa kilifay aada te loolu léegi lañ koy wax waaye bu jëkk kilifa diine gi kilifa gi rek mooy kilifa gi mooy jiite ñëpp ci lépp ku ko cay jàppale nag ci diine mbaa ci leneen ah, loola sa sa jàppale la waaye kii kilifa gi mooy kilifa gi rek benn la ndax yoonu yàlla rëdd rek jaam ñu war cee jaam ci lay jiite nit ñi ñëpp ànd ci ak moom ci loola kon loolu mooy wàccoog kilifay jullit yi bokk na ci bi ci mujj mooy wàccoog mbooloom jullit mi maanaam doomu aadama yëpp jullit yëpp jullit bu ne rek sa sa diggante moom nga wàccoog moom mooy nga def ko na nga ko war a defee te yàlla rek tax loola boroom xam-xam yi nee nañu mooy kenn ku nekk nga yéene ko li nga yéene sa bopp bëggal ko li nga bëggal sa bopp bañal ko li nga bañal sa bopp euh, kenn ku nekk nga ko li nga yéene sa bopp kenn ku nekk itam nga bañal ko li nga bañal sa bopp di jubbanti nit ñi ak di yéwénal seeni mbir di leen xamal seen mbiri diine di leen laabiire di leen lu baax di leen tere lu bon di leen suturaal te di leen euh, ku cay ku la kuy kuy kuy ndaw kuy mag nga war maal ko kuy ndaw nga yërëm ko dañ loolu mooy wàccoog mbooloom julit mi kon xadis bi dafa bokk ci jawaamiul kalim mooy baat yu gàtt yi nga xam dafa tënk dafa tënk mbooleem diine ji mooy daal kon diine daal mooy wàccoog la la war wàccoog la ci anam yëpp ak ak ci digganteeg ñi ñi nga war a wàccoon ñëpp nga wàccoog ñoom mooy kenn ku nekk la war ci sa diggante moom nga def ko na nga ko war a defee te def ko ngir jëm yàlla rek nee nañ loolu mooy diine kon loolu mooy waxtaan wi ñu bëggoon a fàttalante tey jii di ñaan suñu Boroom defal dégg ak topp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول alhamdulilah alqaimi ala kulli nafsin bima kasabat المحصي على عباده جميع أعمالهم قلت أو كثرت ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو شهادة عبده وظهر الطوية وأشرق بالإيمان سريرته وتنورت ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله خير موجود شهد به خير أمة للناس أخرجت صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين كبرت مكارمهم وكثرت يتغرب الشيطان والهوى أما بعد فيا أيها الناس سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وعرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واغتنموا قد هبت لكم ركابها وتعرضوا لما يرد عليكم من نفحاتك وقد فتحت لكم أبوابها وتعرضوا لنفحات ذي الجلال بالصلاة والسلام على الواسطة في سعادة الحال والمآل واستغفروا الله وله أنيبوا وإياه فراقبوا ذلكم الله ربكم وتبارك الله رب العالمين wal الحمد لله حمدا تضرعا بين يديه منيبا وخاضعا لا أحصي الثناء عليه ولكني أصب ما كنت له بترك حمده قاطعا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مقبول الشفاعة ومجاب الدعوة أما بعد فيا عباد الله اجتهدوا بالعمل الصالح أن كان أو فعلا وأمر الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا وأخلصوا العمل فإنه لا يقبل منه wa tahhiru sarairakum min qabli an yaatiya yawmun tuftaru fihi sarairu wa tubla waqifu bayna yaday illahi موقف الذل والانكسار فإن من وقف ببابه فتح له ويسر أسبابه والإنابة إلى الله سبحانه هي أساس العبادات والقربات ومفتاح أبواب الرحمات والكل من عباد الله الصالحين لا يترك الذنب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 allahu akbar allahu akbar ashhadu an la الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت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 allahu akbar sami allahu liman hamidah rabbana lakal hamd allahu akbar allahu akbar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 لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف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 am assalaamu aleykum assalaamu aleykum